ak xel moo xam ni xel mu jaxasoo la waaye maa ngi leen di nuyu ak fit ak jom ak ngor ak fas yéene taxaw ci kanamu Macky pour gàntal pexe yi nga xam ne def na ko ngir nërmeel suñu démocratie nërmeel suñu état de droit nërmeel réew mi nërmeel lépp lu baax loo xam ne fekk na ko fi président Macky ñun ñoo ko fal en 2012 ñu jox ko mandat mandat bi mu fekk ko fi muy juróom-ñaari at mu taxaw ci kanamu sénégalais yi waat ni ñu mandat bi ma fekk mu juróome ñaari at dinaa ko def juróomi at weddi kàddoom wor ñu trahir ñu ñu bàyyi ko mu faluwaat 2019 mu am cinq ans yu mu war a def cinq yooyu constitution ko tudd cinq yooyu constitution moo ni boo defee cinquants yi amoo droit teg ci ñaari fan cinq yooyu constitution moo ni boo ko defee mënatuñu sax réviser loolu faf kon président Macky Sall bu ñu yeggee 2 avril incha allah mënatul fexe ba nekk président de la république du Sénégal ñaari minute duñ ko ko may ndax li président Macky Sall war a xam mooy réew démocratie état de droit ak république ku ne dañ cee la dañ la cee war a jox dañ la cee jox sa cër sa responsabilité ak sa posture ci processus électoral bi moom président de la république lenn rek la ci amoon mooy convoquer le collège électoral jël na décret woo sénégalais yi ni leen bés sangam di ngeen dem voté ji tànn ki leen doy ngeen fal ko pare na ci leneen lu mu ci jéem du cëram amul benn droit amul capacité amul yoon wu ko ko may pour mu ni dina dàq élection mbaa dina ko reporter mbaa mu koy annuler mbaa neneen lu mu ko mën a tudde amu ci droit moo tax may wax sénégalais yi ni man day Cheikh Tidiane Dieye ak képp ku gëm li ma gëm ak képp koo xam ne gëm nga ni ngor des na ci réew mi jom des na ci réew mi te bu ay noon jóge woon ci biti bëgg ñoo def jaam nga xeex ba joxe sa bakkan nga gëm ni lii Macky Sall bëgg ñoo def comme mbiru njaam la man nag dañu ma convoqué ma nekk candidat war a dem élection war a dem campagne électorale ñu fixé ko conseil constitutionnel ba nga xam ni moo ci am cër fixé ko danaa dem campagne électorale incha allah suba may ñaan askanu Sénégal ñu xam ni cër bii fii ñu toll temps bi temps wu peuple bi du temps wu Macky Sall du temps wu assemblée nationale lu sax taxawu conseil constitutionnel bi nga xam ne dafay yombal rek mbir mi taxawu askanu Sénégal la. askan woowu nag moo war a taxaw ngir gàntal pexey Macky Sall comme ni ko leader yi waxee na ngeen ñu déglu ku ci ne ci ñun suba di nga jël sa responsabilité ndax décret wu Macky Sall bi c'est nul et de effet kon danañu dugg ci campagne électorale bi ci jàmm di ñaan yóbbu ko ci jàmm. may woo askanu Sénégal fépp fu ñu nekk nañu génn taxaw ànd ak ñun ci caravane yi ñu baat campagne maa ngi ñaan force de défense et de sécurité du Sénégal ñu xam ni comme ni leen ko Macky Sall waxee woon en 2012 bi ñu àndeek moom jàkkaarloog président Abdoulaye Wade ngir ci Ngor Macky Sall woon na leen xam leen ni askan wi ngeen fi nekkal xam leen fi seen peuple ngeen fi nekkal te bu leen dal mukk ci kanamu peuple bi di ko di ko lor ci njëriñu benn président benn nit boo xam ni peuple bee ko fi teg loolu laa leen di delloo yooyu kaddu communauté internationale ma leen di wax ni ñëw leen lii ngeen wax ak Macky Sall balaa ëllëg ngeen di fay ay taaj ay taal maa ngi wax kilifa diine yi may daaneele foofu fii ngeen toog jox nañu leen cër ormal nañu leen yaakaar nañu leen réew mi fii mu jëm te Macky Sall di ko fa yóbbu bu ngeen ko seetaane mu yóbbu ko fa ëllëg seeni njaboot ñoo ciy loru te Macky Sall du mën a texe du mën a wax du mën a jëf ba nga xam ni fii Sénégalais yi bëgg jëm duñ ca yegg. doon asalaamualeykum wa rahmatullah maa ngi leen di sant di leen gërëm.